dal leen ak jàmm di leen wax ngeen dalati wéy di abonné sur ma chaîne YouTube IYAT TV ngeen di bës cloche de notification bi dina ci am solo seeni commentaire euh, ñi ngi koy xaar jàngat yi nag niki tey dañoo dikkaat ci mbir mi nga xam ne rek mën nañ ba tey taal bu nga xam ne fayagul muy jàpp ki nga xam ne moom mooy Pape Ndiaye ndaxte kat mbir ya nga xam ne rek beesaat na sa gannaaw ni nga xam ne rek noonu la mbir ma daal di demee moom mii nga xam ne moom mooy Moustapha Diop bu walfu daal di say dikkaat nekkatu tooñ lañ def kii di Pape njaay ba passé kaa tooñ ndaxte kat la mu def nekkul loo xam ne rek lu muy réccu la te tamit nekkul lu nga xam ne moom moo ko fi njëkk a wax gannaaw nag moom mii di Moustapha Diop daal di jot a xamle ne lan moo waral buñ ne ñuxur njaay rek ñu tëb daal di jubal si fi nga xam ne rek moom mooy walfu gis nañ fii manifestation yi nga xam ne moom moo fi mujj am gannaaw mitin bi nga xam ne rek kii di Ousmane Sonko waroon na koo def foofale ca diwaanu Mbàkke ñu jaare sa tëj li nga xam ne moom mooy Walfu lu mat une semaine euh, teguñu sa dara gannaaw biñ ko daal dee tijjuwaat ñu jàpp ne nag war nañoo wëyal li nga xam ne moom mooy seen liggéey muy continuité ñu gis ne def nañ arrestation bu nga xam ne rek mën nañ ne buñ ko tegee si yoon tamit du cent pour cent ndaxte kat lañ doon xaar ak li nga xam ne rek moom moo am nekkul benn muy information yu nga xam ne bokk na ca mooy li tax ñu daal di koy téye mooy partager wasaare ay xibaar yu nga xam ne rek du dëgg ak nag lépp loo xam ne rek dafa jëm ci woote woo lu dellu ci wàllu fitna ga nga xam ne nag mën nañ ne jamono yi ñu toll ni ndaw ñi jugte woon nañu ko wante kat ku la tooñ nga fayu loola dara nekku sa ba tax moom mii di Moustapha Diop ci 19 sportifs yooyu nga xam ne rek tuddoon na leen gannaaw nag bi ñu xam lee ne dañoo war a amal non-lieu ci dossier ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko Adji saar dossier boobe nag mën nañ ne ba jamono yi ñu toll nii France daal di nekkat kenn waru koo tudd ci réew mi di Sénégal di ca wax lu nga xam ne day seetal kii di Ousmane Sonko mu mel ne dañoo bëgg képp ku say wax. na nga wax lu nga xam ne day tax kii di Ousmane sonkoo gën a dugg kii di Ousmane Sonko gën a taq ku say wax ci kàddu yu demee noonu mën nañ ne da nga mucc wante képp koo xam ne nag contraire ba nga amee mën nañ ne yow moom sa benn tànk mu nga ca kaso ba sa benn tànk nekk ci bitti. boo defee benn infraction boo xam ne bu ndaw la rek mën na saa jaare ñu daal di lay yàqal li nga xam ne rek moom mooy sab liggéey te nag tasum xibaar. muy ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu journalisme mën nañ ne bu buñ waxul duñ liggéey ndaxte ku nga xam ne kat sa gimiñ wala sa làmmiñ moom mooy sa sér boo noppee danga nga rafle ndaxte xëy suba ba ngoon di gëstu li nga xam ne moom mooy ay xibaar yu wér te wóor nekk lu nga xam ne moom moo tax ñu lay fay nga siy dundal sa njaboot ñu ne la nag wax jooje da ko bàyyi kon nag fan la réewum Sénégal daal di jëm ndaxte kat amuñu fi lu dul liggéey bu nga xam ne rek dañ koy teg ci set ak li nga xam ne moom mooy sellal ci biir ak ci biti ba ñoom ñii di journaliste yi def li nga xam ne moom mooy seeni jàngat yu yaa wér te wóor ci bépp domaine bu mu mënti doon kon nag buñ demee ba di leen di xoqatal ba ñoom sax ñemeetuñoo ubbi seen làmmiñ fa seenee wax la nga xam ne rek lu jaadu la moo xam ak ku mu manti doon ñu fas yéene laa teral ci seenu làmmiñ fa yéene laa teral ci seen xalima tete ko ci dëgg kon nag su boobaa dañuy gis ne réew mi kat dafa mel ne lii di dëgg xaw na fee tumuranke lool tumuranke gu fi dëgg tumuranke nag tax kenn mënatul a wax dëgg kenn mënatu la wax nit loo xam ne rek dugg na ci ab noppam loolu nag nekk mbir mu doy waar mi nga xam ne ñi ngi koy jaabaa jonge di ko am njaay indi jóop ci réew mi ci jamono yi ñu toll nii wante kat li ñëpp di dagaan mooy lan nañ daal di bàyyee nam gën a gaawee détenu yi nga xam ne rek tëj nañ leen ci biir kaso yi ak nu mu gën a gaawee ndaxte kat war nañoo xool xàmmee xam ne fi mu toll nii kat ñun ay doomi aadama lañ yu nga xam ne war nañoo taxaw bu baax a baax a baax xool suñu nekkinu ëllëg loolee nag mënuñu kaa am lu dul ne ñi nga xam ne ñooy suñuy président dañoo taxaw temm fas yéene ñoo dimbali fas yéene ñoo jàppale ci lépp lu manti doon muy neex wala muy naqari muy naaj wala muy ker loolu nag moom la ñëpp war a taxaw gëstu ci. ba tax ñun ñi nga xam ne rek ñooy doomi réew mi ak jafe-jafe yi nga xam ne rek daal dina daal ki nga xam ne rek moom mooy Pape Ndiaye mën nañ ne nag du guleet lan moo tax du guleet ndaxte kat njëkkewu ko te du ko mujjee ndaxte kat lu mënti xew ak lu mënti am dañuy gëm ne ñi nga xam ne rek ñoom ñoo yor lii di nguur dañ ko utiliser ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñooy néew ji doole ji rawatina nag lépp loo xam ne tey dafa dellu ci wàllu journalisme ndax ndaxte kat ñoom ñooñee nekkoon ay nit ñu nga xam ne rek ñu ñu respecté woon lañ nekkoon ay nit ñu nga xam ne rek ñu ñu wegoon lañ ci biir réew mi wante kato bu ñu xoolee jamono yi ñu toll nii dafa mel ne wegeel googee day daal di bëgg a teggeeku daal di teggee côté li ko war a nag du lenn lu dul kenn amatul li nga xam ne rek moom mooy liberté d'express wax la nga xam ne rek peut-être sam njàng may na la ko ci lépp lu dellu ci wàllum tasuma xibaar ki si mujj nag nga xam ne rek daal di nañuy teg li nga xam ne rek moom mooy ay daan ci kawam di journaliste bi nga xam ne rek moom mooy wuyoo ci turu Pape Ndiaye foofale ca Walf mën nañu jamono yi ñoo tollu nii nag xamaguñ fu wànnente di mujjee ak ay gëtëm ndaxte kat mi ngi ci fi nga xam ne rek moom mooy ndungu euh, kon nag mën nañu est-ce que jaaduwul ñu def taxaw seetlu ci suñu réew mi di Sénégal ndaxte kat lu bare bari fi lay xewee te nag ay jàmbaar ñoom ñoo fi nekk ñu nga xam ne rek dañuy xuloo suba ak ngoon guddi ak bëccëg di liggéey ci loo xam ne développement temps lay doon wante kat dañuy gis buñ demee ba dernière minute France daal di xëddeen nekkate jàmbaar yooyee lañ doon liggéey duñ gis li nga xam ne rek moom mooy résultat bi li ko waral nag du lenn lu dul nguur gu nga xam ne rek day wane dooleem ci kaw ñi nga xam ne rek ñoom ñooy ab peuple am te nag peuple boobee nga xam ne ñoom ñoo waroon a nekk première ci ñi nga xam ne ñoom ñoo war a def di dindi ndaxte kat njiit buñ ko tegee ña nga xam ne ñoom ñoo ko fal ci ay carte mën nañ ci seeni waaw la war a dox te tamit ci seeni déet la war a bàyyee waaw ak déet yooyee nga xam ne nag jamono yu ñu toll nii ñii di peuple bi amatuñ ko ci kaw seenu askan léegi nag contraire ba lañ gis maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo yor nguur ñoom ñooy utiliser nu leen neexee ñi nga xam ne ñoom ñooy seenu askan ba tax ñu daal di koy jàpp bi si mujj nag di ki nga xam ne rek moom mooy Pape Ndiaye bu Walfu loolu nag nekk li nga xam ne rek aw naqar la waaw naqar wu nga xam ne ñu baree baree bari ci Sénégal yi daal di nañ koy jot naqarlu wante kat kenn mënu si dara ndaxte kat wax joojee nga xam ne rek jot na koo yëkkati mën nañ ne du fi guleet te nag ku yor say nopp di diglu yor say bët di xool da nga xam ne lam wax mën nañ ne lu garaaw a garaaw amu sa luy tax ñuy xañ doomu aadama li nga xam rek moom mooy ci liberté am liberté googee nga xam ne nag moom la ñëpp di wër moo xam doomaanu Sénégal ga wala sax doo doomu Sénégal wante kat yaa ngi gëstu di jéem a lunjutu li nga xam ne rek moom mooy li ñëpp bokk mu nekk lu nga xam ne nag kenn mënu ko xarñaar comme niñ koy faral di waxee rek kon nag liñ war a def du lenn lu dul teg ko ci diggu pénc mi daldi di koy paacoo ndaxte kat loolu moom mooy mën a am jàmm daal